baax tawfeex la moom Cheikh Babacar tawfeex la moom Cheikh Babacar ku bëgg a xam ñëwaat yi Touba tawfeex sante kon nga xam tawfeex waa di xaadawul il waaw ba tey ñu ci jardin bi nga xamante ne fi lañ ñëw tey pour présenter leen yenn garab yi am na sànq euh, garab yu ñu jot a présenté léegi am na garab bu ñuy wax citronnelle citronnelle moom itam dañ koy def ataaya euh, citronnelle comme ñax lay xaw a mel bokk na itam ci garab yi nga xamante ne wala fleur yi nga xamante ne soo ko jëmbatee sa kër dafay dàq euh, loolu ñuy wax jaan tey daal moom dañuy indi yi nga xam ne dana tax nit ki fegu ci jaan ak euh, yu ko nuru ba pare tey lu mel ni citronnelle euh, jafewul saxal sa kër waaw citronnelle tam bokk na ci nga xamante ne dafay dàq dafay dàq jaan soo ko saxalee sa kër épice la aussi boo xam ne dana mën a servir lu bari da ko mën def épice pour ataaya pour ngu pour euh, ataaya ak yu bëree bari waaw moom citronnelle kon baax na léegi ñu demaat ci beneen plante incha allah. moo di nit ku baax tawfeex la moom Cheikh Babacar tawfeex ku bëgg a xam ñëwati Touba tawfeex sante kon nga xam tawfeex waa ji.